je ne m'acharne pas sur la personne pour m'acharner sur la personne tu dis quelque chose boo xamante ne defaloo ko quand je vais tes idées mais dama koy attaquer de façon constructive parce que loolu la Sénégal soxla Penda ñun dañoo toog ci xiiroo ŋaayoo de 2000 nu mu tëdd 19 man laa koy commencé à 2024 ci xiiroo ŋaayoo ci télé yi loolu rek lañ jëm léegi nag ñu am gouvernement boo xam ne dañ fee toog am jéego yoo xam ne ñu ngi koy def de par leur voyage avec nu mu tuddati euh, euh, euh, l'Afrique de la sous-région de par nu mu tuddati actes yi nga xam ne ñu ngi koy jël ak de part li nga xamante ne seen euh, euh, euh, rapport yi nga xam ne ñu ngi koy génne kon pen suñuy waxtaan man damay ne Jomaay li mu fi defagum de bi mu toogee ba léegi est-ce que loolu la wax est-ce que mu mu ngi tegu ci yoon bi Ousmane Sonko bi mu toogee ba léegi est-ce que mu ngi tegu ci yoon bi nii may critiquer loolu. waaye non non wax a wax ba falu ñu tamit dinañ wax a wax lu ñuy cëpp di dal. d'accord Ameth Ndoye amut sens. oui. merci beaucoup déglu naa li la plupart ñi ànd ak ñoom li ñuy wax mooy wax ji dafa teel loolu ngeen ma bëgg a wax. Mhm. alors ci liberté timing mu kiy wax kooku moo koy choisir man heure bi may wax maa koy choisir du ku far ak Ousmane Sonko wala gouvernement bi wala kenn moo may choisir moo may wax heure bi la ñuy wax ci démocratie aussi dafa am ñoo xam ne dañu ne comme la plupart des des de des des opposants actuellement koo ci invité sur sur un plateau dalay wax ne damay maye temps de grâce. démocratie moo ko may am ñoo xam ne ñu ngi ñëw di wax Omar Sow démb fii laa ko seetaan bi du opposant maintenant moom décidé wul maye temps de grâce man ma jàpp ne sama role rôlu sentinelle la damay alerter damay rappeler donc keneen jàpp ne rôle am ni gouvernement bi di doxale moom noonu baax na c'est-à-dire maintenant nag li ñoom li ñu mës a bëgg très sincèrement ñoom dañoo jàpp comme ça très sincèrement non non non attends gis nga bi ma wax bi nga wax dama laa dëgg maa ngi am <laughs> maa ngi am fa gaay question yu ma la war a poser da ngay alerter nii attends attends faut pas faut pas faut pas ñu jouer ci ay sabotage man suis très sérieux ci li may wax nii fooyoo ma ah, ko voilà si si c'est c'est pas c'est pas parce que ce jugement man moo tax may may def li may def wala may wax li may wax xam nga ñoo nekk ci réew nit yi di wax li ñu bëgg a wax ne ñeneen ñi nañu waxee ñoom fi ñu bëgg a déggee en fait c'est pas possible nga gis benn affaire d'accord ci jàpp ne c'est bon <laughs> keneen ki am droit gis ne affaire bi doxul baaxul li Mamy bu wax sànq ak ay dëgg réew mi li fi yàqu dafa bëri li fi bon dafa bëri liñ fi war a defaraat dafa bëri mais justement looloo tax ñu jële fi ki fi ne teg leen fi alors bilan wu Macky Sall la ñu war a continuer di def tous les jours sur les plateaux de télévision pour rappeler ñi fi toog ne Macky Sall dafa yàqoon réew mi moo tax ñu jox leen defar leen. mais mami li mu wax sànq daf ci bokk ci ne nga baal ma rek daf ci bokk ci ne. Euh, Ousmane Sonko bi muy wax. d'accord wax na mais bu mu ñëwee ci tënk ci li ma mi wax dafa jànkonte ak yeneen réalité ñu jël yóbbu ko réew mi nekk ci guuta gi nga xamante ni fu mu nekk nii laataa ñuy euh, def li nga xamante ni loolu lañ digoon askan bi dañoo war a taxaw déjà ci jubbanti te ci jubbanti googu ci lañ nekk kon nag est-ce que yéen teelul ngeen gi ngeen nekkee mami li mu wax yëpp dégg naa dañoo nekk ci ab dëkk dëkk bi bëri ay secteur secteur bu nekk am ku muy laal marchand ambulant yi ñuy déggee piir ñuy jénn di marché ñoo ñaa yaakaar ne yëguñu ñu ngi def reddition des comptes man je pour que kenn ku nekk loo fi jël fifteen bu mu gën a ndaw ñu topp la duma la daan la delloo fifteen bi ci kees Sénégal je pour sama mbokk na nekk man mm-hmm. loolu laa gëm te looloo war a am mais est-ce que maanaam dañoo war a topp loolu man may kon ne di xiif marchand ambulant bi di am problème ki nekk ci kaso bi di am jafe-jafe ci biir kaso bi kenn du ko àtte ba léegi est-ce que dañoo war a topp loolu ba léegi maintenant maintenant maintenant sànq maa ngi koy dégg muy wax ay accord ak ay nangam ak nangam xam nga parce que boo nee dañoo topp xiif mi mel ni nekk ñu di lijjanti problème mu nu mu tërati mbay dina ma jaaxal di d'accord mais ndax maa ngi ñëwaat ci sew xam nga mhm. réew mi dafa bëri ay pàcc looloo taxoon bu ñu tabbee ab réew dañuy fal ku ko jiite jël ab premier ministre teg fal ay ministre ku nekk dem doxali pàccam waa dañuy jël réew mi maanaam ni muy bëri pàcc yëpp ñu jël ko concentré lépp ci réduction des comptes bëgg koo def bilan bi réew mi dafa bon dafa yàqu moo tax ñu fal leen pour ñu defal ko mais fépp fi bon fi yàqu ak fi am problème loolu ñoom ñoo taxawoon wax ñu ne mën nañ ko defar au fait man exigeant wu ma wala demander loo xamante ni ñoom waxuñu ma ko. man li ñu ma dig laa leen laaj te biñ ma koy dig ñoom ñoo ma wax ne mën nañ ko. mais moo tax ma laaj la ne non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw mami. xamoon nañu ni ñoom lii la ñuy jànkuwanteel xaaral mami. liñ def ci mbay bi doy ko doo ko laaj. mami lu mu mami lu mu wax <laughs> lu mu wax. def ci mbay bi da ko da ko doy mais Oulaye maa ngi ñëw ci yow ci mami laa ne mami moo la njëkkoon a wax may ma ma pare ci mami ñëw ci yow reddition des comptes may ma ma pare ci mami dinaa ñëw ci yow dinaa la tontu li nga wax yëpp dégg naa dinaa ñëw ci accord de paix sànq ci mbay nekk la defuñu dara de waaw yow ci deux mois liñ la defal sa régime bi ngay kii defuñu la fi génn ba ngay gis vous n'avez rien jàpp leen ne rek ku leen ku leen contre daa am lu tax toog leen foofu di nelaw li <laughs> daloon ñee moo leen nar a dal nag mooy di nelaw jàpp ne nit ñi dañoo am lu ci wër wala nangam ak nangam léegi xam nga <laughs> euh, baal jàmbur yow tamit baal jàmbur bu développé li nga xamante ne ni mooy moom mooy moom mooy moom mooy ay ay ay nit waaw suñuy ànd mm. mami man soo ma waxee ne danga maa mën a lii soo ñëwee dama la koy laajaat parce que yaa ma ko wax sa maintenant dañoo war a am tolérance je suis pour mais ak kan ki ma waxoon ne ki fi nekkoon xamul dara cuune la sur une question mais man kooku naka lay ñëwee ci la même question man ñu ne naa ko ci muñal te muñalul woon kooku et je suis sûr te ma mais sur le feu ñi me naa ko waat ñii ñu ma bëgg a loo ne dañ ci patience wala loolu noonu dañ ko waxoon mais amul woon faisabilité bu doonoon Macky Sall ils vont dire que daf ñu fenn c'est-à-dire bu ñu waxoon benn affaire lundi mardi def ko wax li mami wax mami li mu wax ak li mu wax dañuy yeewu wax ñu ne Macky Sall li mu waxoon démb du dëgg mais pour pourquoi su nekkee Ousmane ko ñu koy layal di ko rafetal di ko utal ay excuses c'est ça qui me pose problème aujourd'hui surtout si suñu millier médiatique bi et yàlla nag di àtte c'est les mêmes faits yi doon xew parce que su ñëwee ci arrestation journalistes yi ñu wax ci c'est les mêmes faits dafa mel ni yàlla dafa nekk di ñu àtte même fait yi ñu taxawoon démb di ko ñaaw sous le régime de Macky Sall yenn yi ñu ngi nekk di xew en deux mois ñu bëgg ko layal même personne yi ko doon ñaaw lu démb ñëw bu mélenchon beeg yeneen ak yeneen ay exemple la même personne yooyu ñooy dundu fekk gudd fan toog bëgg ko layal. Ah, ci même fait yi ci même acte yi. exactement mais avant ñu ñëw foofu fan ngay dugal la fekk nii ñoom dañoo ñëw ba toog. jànkanteel ak yeneen réalité. ma càcc gi. wuy ma wuy ci koppar et autres. wuy mais sama question la man ba ma ko laaj. fan ngay dugal loolu. penda fan ngay dugal loolu. Ameth Ndoye oui penda la même chose laa la wax moo nekk di xew ko beneen affaire bi nekk di xew te doon xew au moment où ils faisaient leur voilà innombrable sortie médiatique ou live nit ñi lu ñu leen doon wax non réalité état du lii. xamagoo leen état li ngeen di wax mënta nekk ci moment boobu ñi leen doon wax loolu lii ñu may taxé tey lañ leen doon taxé di leen traité de corrompu de vendu d'avoir des problèmes personnels da ngeen a bañ Ousmane da ngeen a nii nanga ma naam dañ ko ko doon lii lañ ko doon bañal ñenn ñi xam état doon nañ ko wax ne li ngay wax nii mënta ne ci état ñu ñu jël ñooñu ñëpp utal leen benn connotation mooy def leen ci benn saak waa système bi la ak ñiy dundee système bi wala ñiy toog muy dox jàpp na dañ cee am lenn moo tax ñu leen di wax ne li ngeen di wax mënta ne. mais yow ci ban système nga bokk. Ameth yow Sénégal nga yeewoo ci ban nga bokk. man système bi Ousmane Sonko bokk. no maanaam maanaam ce que ce que je veux je reformule ma question. Mhm. c'est-à-dire euh, aujourd'hui bu fekkonte ne dañuy dañu ne dafa am ci ay pàcc ci société bi. Euh, ñii dañoo am plaidoyer am ñi am combat bii ñi am ba ca des yow maanaam yow ci ban combat nga ne. man. waaw askan bi bu askan dund gi wàññeeku. dama combat askan wi nga nekk. fa laa nekk. yow est-ce que tu te réveilles au Sénégal combat askan wi léegi. li nga xam ne moom mooy. bëgg naa li nga def nii tamit. temps bi amet amet tey seen gën la da leen koy laaj. <laughs> temps bi ah, temps bi timing bi amet kat foog ma koy laaj nag wax dëgg ah, yàlla. amet il est drôle timing bi. manoo je donne un exemple ci li fi xewoon ci appel à candidature bi nga fal ay nit ñu lay rappeler li nga waxoon ñu ne dafa teel. comme dafa teel da nga leen a fal à dañuy bàyyi ba mandat bi jeex ñuy doog a kaas mami Samb boo jox benn post ok d'accord léegi yow tey attends attends ma ma terminer mami Samb dama lay relancer waaw waaw xaaral ma terminer xaaral ma li ma lay relancer layal ma pare ci. bu jox la nga relancer. lool. génn di ko layal penda comme ñoom mën nañ layal lu ne ñu ne ñu sur certain man sama classe bi nga xam ne dañoo am patience ma ne leen jël naa sur certain sur certains postes ngeen moo xool waaw ba fii may wax ak yéen ñi certains yi anañu Ahmed yaa ngi génn sujet bi de. non je donne un exemple. ci ne timing bi ñu war a wax. yow argumentel ci sujet bul génn gum foofu. desal fi nga des mais maintenant. on parle on parle mami mami soyez soyez soyez quand même. soyez quand même démocratique xam nga lu tax ah. sànq bi ngeen di wax dama leen déglu. ngay valser. génn fii dugg fii dama lay delloosiwaat ci sujet bi dangay attaque personnelle ngay def nii naa lu ne nga koy wax ma toog la di di di di la génnee sujet bi sëñ Ndoye dama naan la si ci sujet bi. la mami quand non mais man li may waa argumenté au moins lu ma mën a dégg Ahmed Ndoye. non non donne des arguments possibles quand même. tu mami mami mami. c'est selon loolu c'est selon je vais pas être ici.

c'est-à-dire est-ce que relâche ak jugement benn la. wala appréciation je suis en de faire des appréciations naan dugg na sama bopp ak duggul ak sama. ça n'a rien à voir ak relâche maintenant relance am. maa ngi lay dégg relance bi ma la bëgg def mooy ne aujourd'hui